kaay na ngeen ma xorom ma ah. xoroma asalaamaaleykum sëriñ Muntaxa Mbàkke asalaamaaleykum kilifa diine yi nekk Sénégal yépp suñu teewaay bi li ko indi mooy ñàkkee teggin yi ñu leen ñàkkee teggin dañoo dem seeti sëriñ Muntaxa mu am lu bari lu mu téye ndax bu ko téyewul woon tey jii am na ñoo xamante ni doom la ñuy doon garantie parce que Sénégal million millions ba 18 millions doomu aadama ñoo fi yeewoo kon 1 pour cent waru ñoo sonal message bi nag déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen ba pare dinaa leen xoromal ba ngeen doyal mais da ngeen di déglu xam nga lu tax ma ne ñu déglu parce que ñun Sénégal dégloonte rek moo ñu të dégloonte moo ñu të te bu ñu dégloonte rek am ndam parce que ba may commencé di xorom kenn bëggul a gis Assane jiw mais nit ñi dégluwuñu woon moo tax li taxoon may xorom te tey nit ñi ñoo naan xoromal kon président Macky Sall 31 décembre 2020 yow yaa toog ci palais présidentiel ne yow doo ragal xoolal miir bi gestu leen gis ngeen miir bi ah lii miiru tapet la miiru tapet te xoolal tapet tapet du taxawaalu tapet du dox ci mbedd mi tapet dañ koy escorter toujours du dëgg ah ñu di ko xamal ne ñun du dem ak moom sax sama papa dafa wax deux mille vingt deux du ñu egg vingt deux parce que defe naa xoolal xale yi am na lu nekk ci yéen loo xamante nii jaral na leen yeewu fajar dem jëli seen carte d'identité yi xam nga ba pare ñu dindi li ñu def ci carte yi da leen koy jaral te li leen koy jaral mooy tax ñu tàqalikoog moom 2021 parce que il faut ngeen yulli leen ba ñu set dégg na ah balaa ñu egg dina fekk saaku bi yulleeku bu ñu eggee 2022 bu fekkente ne parce que sama frère nee na moom gëmul ne élection dina am Barthélemy te man lu mu wax gëm naa ko parce que mës ta wax ñu ne li muy wax du dëgg buy wax dañ ñaan mi ngi waxati ak fit mais buñ ci eggee rek dinañ ne waxoon na ko yaa ngi dégg moo tax ma bëgg balaa ñoo egg foofu ngeen fexe ba yulli saako bi libérer Sénégal pour ñu libere Sénégal nag xoolal fulla lañ ciy boole moo tax ma nuyu kilifa diine yi di leen xamal ne ñàkke teggin yi ñu leen di ñàkke teggin man de moo tax ma toogoon New Orléans di xorom barki sëñ Fallou parce que Cheikh Sidi Mokhtar a fi woon Al Amin a fi woon ak yeneen kilifa yu baax Sidi Lamine Niass nekk fi di xeex bis bu ne kenn dégluwu ko kenn dégluwu ko kon gars yi bu ngeen eggee seen kër yi rek na ku nekk jënd mbuusu xorom du ñu bàyyi xorom mukk de parce que ku añ xoromal nañ la ku reer xoromal nañ la te kii fi nekk moom xolal xam ngeen li ñu war a xorom deneen ko xorom bis bu ne duñ ci egg nag deneen ko xorom bis bu ne dégg ngeen ah? kon Sénégal ca kanam ba pare xolal kan moo toog ni jógal taxaw jógal jógal nee na ndax su taxawee dama koy xorom wala dama koy suukar sama gars yi man buur si nay sama maam xolal ñun lem la ñu yor lem boo duggee marché ti leen boo demee séeréer yi lay jaay ma ah, man Diouf laa sant xolal barigo lem laa ko sotti parce que Sénégal a ànd ak moom man ku ànd ak Sénégal ànd na ak yow Sénégal moo ànd ak Barthélemy Diaz Sénégal moo ànd ak m Sénégal moo ànd ak Bougane Gueye Dany kon ñi fi toog nii ah respecté leen leen te xam ne ku ci nekk da bàyyi sa kër bàyyi sa doom bàyyi sa jabar bàyyi sa lépp di xeexal Sénégal ma bëgg bu ëllëgee bu ëllëgee fii nii damay dégg yenn nit ñi di naan feesul parce que xolu sénégalais yee fees te ku sa xol fees bu sa feesee génne la sa néeg du yomb mais toujours dina am ñoo xam ne dinañ la demal moo tax ñun ñoo leen mën a teewal ñun ñoo fi teewal Sénégal bu fi Ousmane rek taxawoon dafa mel ne Sénégal yëpp fi taxaw parce que moom mooy.